Hello, ladies and gentlemen, welcome back to Angle Tough Tough. In our lesson today, we'll be learning some ordinal numbers in English. tey sunu leçon dañuy jàng li ñuy woowe ci anglais ordinal numbers tey nag dinañ ci jël lu am solo dinañ jël li ko commencé premier balan ba vingtième mu nekk lu am solo lool te baax ndax da nga ko war a maîtriser bu baax a baax a baax ci anglais let's jump right in bi njëkk am mooy lan first first mooy premier wala première dégg nga first mooy bi jiitu wala bi njëkk wala ki jiitu wala ki njëkk dégg first man nga seen nag ñu bindee ko daal di def one def st dégg mu def un def st boobaa na nga xam ni first lay tekki dañ ko gàttal first dégg first code mooy premier wala nga ni premier maanaam bi jiitu wala ki jiitu wala li jiitu second second mooy deuxième maanaam ñaareel dégg ñaareel moom la naa second ci anglais mën nañ ko bindee na comme nii daal def to def n def di mën nañ ko bindee noonu boobaa tam na nga jàpp ne second lañ ci jublu third third mooy ñetteel maanaam li ñuy woowe troisième ci français third mooy troisième maanaam ñetteel ni manees na ko bindee comme nii nga koy gisee daal di def rek lan three def r def di na ko jàpp bu baax a baax a baax boobaa na nga xam niñ ci jublu mooy troisième maanaam ñetteel third mooy ñetteel third noonu lañ koy liire third ok ñeenteel mu ni fourth fourth fourth mooy ñeenteel dégg nga moom la naa fourth ci anglais fourth moom mën nañ ko bindee comme noonu nga ko gisee daal di def euh, four def tii def eight ok ñu dem ci fifth fifth mooy lan fifth mooy cinquième man nañ ko bindee comme noonu nga ko gisee daal di def five def tii def eight boobaa na nga jàpp ni cinquième lay tegtale aussi ñu am lan sixth sixth mooy juróom-benneel juróom-benneel moom la français na sixième sixième mooy sixth dégg nga moom mën nañ ko bindee comme daal def six def tii eight ok boobaa nag nga jàpp ni sixième lay tekki seventh seventh mooy lan juróom-ñaareel dégg nga mooy septième seventh mooy juróom-ñaareel moom lañuy ñu woowee ci français seventh mooy mën nañ ko bindee seven seven daa def t h ok eighth eighth eight tamit mën nga ko gis ñu bindee ko comme noonu daal def eight def th dégg nga muy tekki huitième maanaam juróom-ñetteel ok ninth ninth mooy juróom-ñeenteel ninth juróom-ñeenteel mooy mën nañ ko bindee def nine def tii def eight ok tenth tenth nag mooy fukkeel euh, li ñu wooye dixième ci français tenth mooy fukkeel tenth mooy fukkeel ñu am aussi eleventh eleventh mooy lan onzième fukkeel ak benn fukkeel ak benn fukkeel bi ak benn moom la naa eleventh mooy onzième ci français ñu am twelfth twelfth twelfth mooy douzième fukkeel ak fukkeel ak euh, ñaar dégg kenn ni ki nga ne fukkeel bi ak ñaar twelfth mooy fukkeel ak ñaar thirteenth fu fukkeel ak ñett thirteenth fukkeel ak ñett thirteenth fukkeel ak ñett moom la na treizième treizième mooy thirteenth fourteenth fourteenth mooy fukkeel ak euh, ñeent fukkeel ak ñeent moom la na fourteenth fourteenth fukkeel ak ñeent moom la na quatorzième ci français ñu am fifteenth fifteenth mooy quinzième maanaam fukkeel ak Euh, fukkeel ak juróom moom la fifteenth sixteenth sixteenth mooy seizième maanaam fukkeel ak juróom-benn fukkeel ak juróom-benn fukkeel beeg juróom-benn kon mooy sixteenth ok seven seventeenth seventeenth mooy lan fukkeel ak juróom-ñaar. ñu koy wooyee dix-septième dix-septième mooy seventeenth eighteenth eighteenth mooy lan dix-huitième nag mooy fukk fukkeel ak juróom ñett fukkeel ak juróom ñett moom lan naa eighteenth mooy mën nañ ko bindee comme noonu ko gisee ak yeneen yi mu tudd tamit te nga gis ñu def euh, nombre ba pare doole ci th na nga jàpp ni mënees na ko bindee noonu bu baa xam dañ koo gàttal loolu leeral naa ko ñu am lan nineteenth nineteenth mooy lan nineteenth mooy fukk fukkeel ak juróom-ñeent fukkeel ak juróom-ñeent moom lan naa nineteenth fukkeel ak juróom-ñeent ban nag moo ci def bi ci des mooy lan waaw nineteenth mooy dix-neuf dix-neuvième ci français dégg twentieth twentieth mooy lan euh, ñaar fukkeel twentieth mooy ñaar fukkeel ñu ko vingtième vingtième mooy lan ñaar fukkeel ok twentieth twentieth mooy ñaar fukkeel kon fii rek la ñuy yam tey ci ordinal numbers yi incha allah dees na si jëlaat yeneen leçon euh, ñu mën a yeggale yeneen détails yi nga xam ni am na ci yeneen euh, numbers incha allah li wa de Culture Road taf-taf ba baneen yoon goodbye